amateur mbokk Sénégal ñi ngi fii ci rue 7 angle 6 muy jeudi 19 avril 2023 ñu seet ci benn champion champion bu mag boo xam ne ni Médina la dëkk muy Kéwel mais Kéwel balaa ñoo dugg ci waxtaan bi il faut ma bàyyi la nga nuyoo ba pare. waa Diba asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant waa Médina bi yëpp waa ma di la sant di sant waa site bi nanati sax Sénégo ñu ngi koy san bu baax a baax waaw di san ñëpp daal di sant sama gars yi toog fii ñoom Mala ñoom Aada xam nga ñoom Doudou Abdou ay Moussa gars yëpp daal ñoom mbër nanati Babacar waaw Babsi VIP waaw di san sama booy taxaw ni ñoom Tony ñoom Sarif gars yëpp daal waaw ñoom Babacar. mais keroog dama la gis ni yéen a ñàkk jëriñu ngomba nga perte combat boo xam ne nii waroo ko woon perte lan moo la perte lu non xam nga rek lam moom ku ne xam na ne moom mu daa baaxoo noonu quoi waaw dafa doonoon combat bu baaxoon ci sama carrière nag waaw. dama gis ni keroog. Mhm. ñàkk ci biir combat bi sax ñàkk jëriñu. am na fa avertissement. nga jow nga waroon gérer combat ci cinq minutes wala six minutes ñu may jox la ndam. non man moom xam nga moom fugu gaynde bi laay demee rek. waaw dikk naa combat bi xam nga top ambiance bi mu neex affaire yooyu daal mais lépp sant yàlla daal jaam ak pexeem yàlla ak dogal waaw bëggoon naa victoire bi kom yàlla moo ko may nag man xam nga ñaanal yàlla mu jik ko rek man wéri leneen quoi pour man du la ko perte loo da ñàkk jox cër moo tax nga perte combat bi non non du kees yoo ñàkk ñàkk a jox cër sax man xam nga damay bëre rek waaw bëre rek ci bëre laa ko ñàkkee rek mhm. kon yàlla def na yéen a Tidiane Faye ñu ne yooyu yaay xale ëpp ko doole nga waroon jeexal combat bi ci 3 minutes wala 5 minutes ñu dem suñu yoon. waaye loolu dafa mën a nekk. Tidiane Faye di champion <laughs> Tidiane Faye champion la comme ñëpp waaw mais ki nga xamante ne nii àdduna gépp nee nañu le professeur la mu ñëw xam nga téye boppam am na nooy dale ci kawam mun na laa juum loote bu boobaa kon mooy loolu. yee loolu la. kon loolu moo tax keroog nga bëree noonu gérer combat bi bañ def erreur. waaw moo tax ma gérer ko noonu bañ a bëree erreur. parce que maanaam am na ci lu ma jógee xam nga coow li bëri affaire yooyu noonu ma ñëw jëlaat Tidiane Faye war ko daan ñëw gis nga combat bi ni mu demee xëy na noon noonu daal la mën na demee quoi wooy mais yàlla def nañu ni tamit nga jël Jokkel daan ko jël bi amul benn werante non dama jóge ci Tidiane Faye xama nga euh, bi ma jógee am na am na loo xamante ni sax maa ngi ko doon juñ gaay yi mais ñi ma jege nan nañu ko quoi mais ñi ma sori moom xëy na duñu comprendre fi may waxee léegi nag yàlla def loolu lépp maanaam yàlla teg ci loxo mu mu normal quoi moo tax bi ma ñëwee gis nga sama combat ak Jokal dama dafa gaaw damaa ñëw appliqué li ma mën li nga li nga xam ne nii moom la ma ñëpp xame loolu laa ñëw def. yeah. mais si seen mëneem nga ko ni nga mënee. déggoo li ma la sama combat ak Jokal damaa leseeru nice ñëw comme kewel ma na mu daa ñëwee loolu laa ñëwee moo tax bi ma ñëwee ma tracé def li may def te keneen ku ma jëlaat it noonu laay def. waaw actuellement nii site bi moo laaj loolu est-ce que mën nga ñu wax ñaata combat am ak ñaata ñoo la daan. non site bi nag bul ma bettee laaj ma loolu du ma ko mën a man bari na ay combat waaw si loo xam ne comme ay nongolo ñu demee noon <laughs> non bari na bari na war yàlla mënuma lim yëpp moom. no mënuma lim combat yëpp bari na man damaa toj reefan sax soog a ñëw Dakar. cinq rek ñoo waaw daan nga leen fii Ibomar. daan naa fi appartement. daan naa fi Mama Lamine daan naa fi Ndongolo daan naa fi Laye Bey daan fi Aliou Mané daan naa fi kolifay numéro 2 waaw fii ci stadium bi. mais ñan ñoo la daan. Euh, kii moo daan ñàkk jëriñoo daan ak Modja ak kan ak kanaat. non yi ci des ay combat pri ay combat yu ndaw la combat yu grand combat yi ñoom ñooñu ma daan ak Boy Niang Boy Niang Magat Seck waaw mais ci des ay combat préliminaire la quoi mooy loolu ay combat yaa ma gën a xam la comme yàlla jóge nag si Jokal yow léegi ñan nga bëgg a bëreel non bari na man instant mu toll damaa laaj ba son sax xam laaj moom taxul gars yi jox la da ngay laaj sax bu ko defee am na ñoo xam ne sax bu yàggee dañ lay jëppi sax ay sawaay daa bëgg a laaj ak nii na affaire yooyu ñi ma war a bëreel bari na ku ñu ma jox baax na dootuma laaj kenn non tànnal rek. non non dootuma laaj. signor mi ngi fi Modou Anta mi ngi fi Moussa Ndoye mi ngi fi ah. waaw ah, non catégorie boobu moo tax may may wax yow catégorie boobu nga tollal. non catégorie boobu laa toll ñoom Yékini Signor ay ñoom ñoom Moussa ay ñoom ñoom Bébé xam nga ay ñoom Marley catégorie boobu laa war a bereel mais dootuma ci laaj kenn. mais yàlla def na nii. que ban promoteur moom moo la seet si actuellement nii pour proposer la combat. rek am na promoteur bul ma woo barki dem rek waaw ñu ngi wax daal mais xëy na bu ñu déggoo xee daal mooy loolu. waaw nañ xam ban promoteur no jarul ko gars yi moom xam nga ne bu ñu xamee fi nga jëm doo yegg moom da ngay sakketu rek bàyyi noonu mais yàlla xam na ne barki dem bi may sangu ci ngoon am na promoteur moo am lu ma wax billaay walaay. xam nga xel nag day fatt quoi. Mhm. du ma bëggoon ma nga wax ma man yow lan laa la waxul pour yow nga wax ko. non yow kay laaj nga ma lépp. xel day fatt quoi wax. laaj nga ma lépp mobilisation bi waa Medina yooyu yëpp. waaw instant yi mu toll ni daal. dundee koor beex loolu waaw gis nga weeru koor bi ni mu demee nii gaa yaa ngi nii ndogu yi ci kanam tuuti kafe gi dañu ko war a jiri. mburu meeg lépp mooy loolu weeru kooru jàmm war nañu ko ci bismillahi rahmaani rahim. génn di ci yàlla na luñ ci génn ci alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla yeneen koor di ñëw te koor gu ñëw dàqal ñu gu fi jógee xam aussi. yàlla def jàmm ci réew mi élection yi ñuy waaj nii xam yi ci gaa yi séntu yëpp yàlla na bu mu si am na lépp jaar yoon ñëpp am jàmm mu set guy ba mel ni galaas aussi di wax promoteur nañu ñëw instant mu toll nii moom tout tëbbee na sunu yaram tàng na supporters yàkkamti nañu laaj laajte bi métti na kewel fu combat yi toll ji man son naa ci démb am na kul ma laaj ne naa ko vingt jours laa may promoteur yi bu nu ñëw ma tekki sama ngem te jóguma ci nag yéen laay waxal bu ngeen ñëwut fekk 20 jours mooy loolu. mënoo tekk sa ndam sa ndëmb parce que yow saw sans loolu ah champion nga du yaay tekk sa ngemb am nga fu nga war a jaar ba ñu libereel si loolu mais actuellement nii boo jëlee décision nga ne yow da ngay def loolu Médina ñooy mobiliser wu bañ loolu. mais mënul ñàkk parce que lu mënul ñàkk moom faw mu am xam nga man damaa am samay moroom yoo xamante man yàlla def na mbër bu benn mbër. yàlla def na benn mbir ah, mosul maa daan bàyyi ma fi man bu la neexee nga site ñi ma ñi nga xam ne nii ñoo ma mos daan kenn daanul ma bàyyi ma man dama dem danga may daan taxaw xaar ma ma jàll rombaat la dama lay daan dem. waaw léegi promoteur yi laay déglu nañu ñëw wala vingt jours bu motee ma bàyyi leen ak làmb ji waaw. yooyu yàlla def nga ni ngeen am nga benn promoteur bu la seet si. waaw léegi combat boobu léegi mu taxaw. nga daan ma ay vingt jours ay dix-sept jours. bu ni toog ma moom mot na ci vingt yi ma toog. mais bu dépassé mooy saye promoteur bi kay di ngeen d'accord ah. wala yow li ngay laaj mooy bari ba foofu la problème bi nekk. non wala ñi ma war a bere di man mam fi mu ne niin est que bu nu ma jarut sax ñu may fay promoteur yëpp wax naa leen ko ku ñëw baax na bere gratuit. waaw kaddu bu mujj bi looy wax. kaddu bu mujj bi di. ah mais meñcee rek waaw ñun moom dara jaaxal ñu moom <laughs> waaw. laajal sa waay maa ngi nii sax géej laa war na dem moom moo ma wax pour ma toog xaar nii mooy loolu mais ñun daal dara jaar. bëgg rek ndax trois séances ngay entraîné si biir weer kër wala ñaar. benn. waaw benn séance comme fu benn séance rek bu koor gi jàllee ñu continué waat ñaar ba ñett rek waaw mais fi mu ne moom benn rek. waaw kaddu bu mujj bi. kaddu bu mujj bi daal di san ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm gars yi sama gars yi may nekkandool fii da ngeen a teel a ñëw sax moo tax feku ngeen leen fi mais ñu ngi sant ñëpp. ñoom Tamba xama sama géwél la moo yore taamul masoor bi xam nga ñoom aada comme ni ma ko waxee woon rek daal di sant waa Médina bi yëpp waa Risset bi bàyyiwuma kenn xam di sant laay sama grand sama xarit dibiteeri Lemboté moom saa bu ñu entrainement entraînement am na mu def ñun. yaa ngi dégg maa ngi koy sant bu baax di sant Pape Moussa sama benn xarit bu ne Kër Ndiaye waaw maa ngi koy sant bu baax di sant Assane sar itali Italie sant Ndoof bu baax a baax yaa ngi dégg xaadim sama doomu ndey sama xarit maa ngi koy sant di sant maam Góor Sam di sant gars yi yëpp daal ñoom Pape Ngom waaw ak ñoom maam Cheikh Marle waaw Tafatin sama garam maa ngi ñëw de maa ak seegul di foofu laay jëm si foofu laay teerale waaw bébé jën moom boobu du ma ko sant sama sama kii la moom moom ñëpp xam nañ ni mu demee di ko ñaanal jàmm daal waaw moom moom jàmm rek laa koy ñaanal moom waaw di sant sama grand Tafatin ñoom maam Góor Diouf Mbaye Diouf xam nga Eli xam nga ñoom mbay mbay satunur maa ngi koy san bu baax sama xarit la sama waay la waaw maa ngi koy san di san ku ma fàtte rek xamal ne mooy loolu xam nga ñoom sama mbër yi may àndal di entraîner ku ci mel ni ñoom Boursine am na combat di ko wax ne combat bi mu am sunu combat la ñun ñëpp dañ ci nin bat parce que booy bi mu jël booy la tey dafa ñëw pour daan Boursine mais loolu duñu ko nangu. dañ ci booy bi dafa nekk si yoon de bu ndaw dafa nekk si yoon. looloo tax nag. combat boobu sunu combat la du combat Bour Sine sax balaa nga ko doon xam bàyyil bu affaire yi commencé Bour Sine xoolal bu boggee dina entraîner bu bañee dina entraîner bu boggee sax man bañu ma sax ñu xeex mais wallaahi dina entraîner booy bi booy bi ñoo ko gën a ñeme entraînement téeméeri yoon. barke Seydina Mohamed man ak moom bu ñu demoon din mu daw bu ñu demoon saal mu daw li may yëkkati mënu koo yëkkati. barke yonentu yàlla Mohamed Lac de Guiers mi koy entraîné maak moom boo nu sarse loon ñu escouade barke alxuraanu karim li may décorosé mënu koo yëkkati kon booy bi am na problème ndax na dugal loolu ci boppam waaw waaw di sant ñëpp di ñaanal mbay guy gi yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm mook armée waaw man daal mber mu ma limul rek xamal ne dama juum waaw maa yéene naa ñëpp jàmm di wax promoteur ne leen maa leen di leeralaat loolu noonu vingt jours bu jeexee jeex na waaw tey ñu ñëw seet sa doomu ndey Kéweul comprend nga mu def ay jaloolu rëy si làmb ci tey ñu seet si ko looy wax. ah waaw waaye xanaa nañ waaye yow ni xanaa rek di di di daal di kontaan si mooy si li ngeen ñëw seet si ko ah, di wax ni di wax ni ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ah, di wax ñëpp nañu baal ak ci weer weer bu tedd bi di bëggee ñëpp waaye nag waaye ñëw nga seet si mbër mu am jom mbër bu am fulla mbur bu nangoo entraîné. xëy na nag ndam yàlla rek moo koy joxe mais ku xam kéwél xam kéwél ni xam ni du du sa du du mbëru wayaa wayaa yi ni kéwél ba muy kéwél yow yow yow xam nga làmb bu baax yow macha allah yow yow tamit sa sa taxawaay ci làmb gi rafet na lool waaw yow yow di ba mais ku xam ki xam ni xëy na làmb moo moo dikkee rek ay tolof tolof mais champion la te heure yi waroon na ko fekk te muy bëreeg ñoom ñoom ay waaw ñoom ñoom Sa Thiès ak ñoom Boy Boy ndax ndax ki ki kii ba muy bëre gars yi ah lambu lambu jànq rek la bëre de. waaye nag mbër la waaye nag ñun kontaan nañ di ñëw di kii man nag man nag maay géwalam maay géwalam maa koy tëggal maa koy bàkkal maa koy saajal ba mu neex. waaw te bu ma tëggee ba mu neex moom moom bu demee ci biir da koy da koy bëre ba mu neex na na yi ñëw na yi ñëw xoolal ñun laajun nag kenn yéen xam ngeen kéwél kéwél xam na xam ngeen ko bu baax. laaj ñu kenn waaye nag ku ku ñëw rek ñun ñun ñu pare nañ ndax ni ko gisee ne nag attention ci koor gi ah day dem entraîner de bu jugee nii day wàcc géej dem entraîner def kii di waaye di kontaan ci yéen kontaan ci yéen di ko ñaana yàlla yàlla yàlla yokku yoonam leeralal yoonam te yàlla pousse ko ba ñu bañ koy dégg si roi des des arènes yàlla mën na ko. naa la. ñu ngi fay. yow tudd. man euh, Pam Ngom lañ may wooyee. Mhm. waaw tey ma jëloon sa doomu ndey Kewel. Mhm. nga xam ne champion bu mag la looy wax si loolu. ah Kewel de bu ngeen ma laaja si moom moom wax dëgg yàlla dina sawar a tontu si seen laaj parce que nit ki nga xamante ni ba ngeen juddoo ba léegi yéen a ànd ko gis ñu gis la fa ngeen di ànd ba ngeen nekkee xale ba léegi yaakaar naa ne foofu moom luy umpale nit moom mënu fa am ñun xam nañ ko baax. te man nii nga may gis nii dama am ngëm-ngëm suñ ñaar yaay ñoo bokk ndey ak baay mais foo ko gis boo tourné xool ma si wetam te dama koo xam bu baax xam naa fulla ak fayda ak nangu liggéey làmb ji mu nekk nag comme niñ koy waxee rek làmb moom papaay kenn moomu ko waaw di ko wax mu gën a góorgóorul rek te yoonu ndaw du gaaw quoi li ñoo xam si moom nag bëri na parce que mu ngi naa toj na Bawol door a ñëw mais dafa toj ba Bawol ba pare jóge Bawol jàdd Thiès tas ko Weser ñëw Dakar bëri fi ay mbappat nag yu ñuy coow toj Dakar gi yëpp door a dugg arène ñëw tas ko li mu am si ay victoire moom sax xamu ko te yëpp top 5 la barke Serigne Touba kii bu dul woon sama sama mbokk di sama rek man dama koy supporter parce que man damaa bëgg nit ku am jom man ñëpp tafaatin lañ ma xamee mu nekk sama xarit nekk sama doomu ndey barke Serigne Touba ñoom bi ñuy door a dugg si làmb 2008 lañ tàmbale entraînement fii si géej ñun 2003 ñu ngi doon entraîné yaa ngi dégg boobu ñoom man xawma woon sax ne ñoom dinañ dem ba nekk ay mbër man Tapha moo nekk sama xarit nekk sama lépp bi ñu door a fël nag bi toj mbappati nangam xam nga man may ànd ak Tapha ñoom ñu naa ma yow léegi Tapha moo nekk sa xarit quoi ma ne leen da ngeen fi def lu raw lu Tapha def bu ngeen ma bëggee gis wër na yàlla ma gis fula ak fayda si ñoom moo tax ma ñëw si ñoom boo leen gis nag gis ma fa bu neexee may dëddu mais bu naqaree ma ñëw yaa ngi kii sama lépp la xam naa fula ak fayda te li mu li muy bëre mbapat li nekk si yaramam barke alxuraanu karim bi amul lu mu si wane sax si arène bi moo ko wëree ndox la gën a bëree ndaanaan la kulu fandi mbër boo ko daanee mu jooy rek wala mu dem ba si biir làmb am lu ko naqari mu jooy xamal ne mbër moomu mbër mu doy waar a ngi noonu te li nekk si moom waneegu ko te xam naa ne bu làmb waxoon dëgg tey ji fu Sa tollu toll wala Boy Niang toll fa moom dina toll fu ko raw bu dee fit ëpp ñu ko bu dee entraînement rek ak ñime lu metti billaay walaay ñu ëpple wuñu ko kon nag di ko ñaanal yàlla yoonu ndaw moom du gaaw yaa ngi dégg parce que sëñ Fallou sama turandoo sama xarit doon na wax naa yuru yuru xëy na yareet rek kon tepp-tepp moo gën yureet di ko wax ne di courage li ci kanam mooy dàq li ñu jóge nii waaw gaynde pire la di kontaan si moom man du ma ànd ak ku ñàkk fay la parce que Serigne Touba ñooy ànd entraînement bu ñuy dem entraînement ñooy ànd dañuy dem fajar di dem guddi di dem bëccëg fu ne ànd nañ ko entraînement combat bébé jéen bi yëpp ñoo ko entraîné ba mu jeex li ma gis si moom gis ko si Bébé Diène yal na leen yàlla lafal cat lafal cat mbëru Bawol yëpp ak mbëru Dakar Médina palato bi parce que ñun ñëpp benn lañ waaw ñun moom ñoo ñu dalal baa ñu ànd ak ñoom ànd bu rafet suñu ay màgg ba ci suñuy rakk ñëw yàlla na coloré gi gën a jëm kanam yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp waaw defal ñu xam nga ñu ñu ñoom li ñuy séentu si làmb yàlla may leen ci lu kawe seen jor barke borom Tuubaa di kontaan si yéen yéen yi nga xamante yéen a seet si sama doomu ndey sama xarit di leen ñaanal mu ngeen fi toogoon tuuti nag ba ndogu bi kii rek affaire yi gën a neex mais kontaan nañ si yéen yéen itam bu baax a baax di leen wax rek wa salaam ba di leen déglu rek ba xam loo leen di laajaat ba